wayam doxoo mu koy tagg nan ko ataani dikkal na ma abayta bañ nga allah na rabbu dañ ko daan nuyoo buur maanaam abayta bañ nga an taatiya nga dikkee ma tulaanu alay lañ lay rëbbee wala aw abayta wala bañ nga an talaana nga rëbbu ahadan kenn li karamika ngir tedd nga tedd noonu lañ laa nuyoo buur xam nga yow ay caaxaan rek la dégg nga waaye lislaam moo la andi kooku moom ñaan la loolu mooy nuyu piir de waaye boo jàkkaarloog buur naan ko doo def mukk luñ la rëbbee buur bi si luñ ko rëbbee la dëkk mm. xam nga ne naa nga mm. boo ne ko doo rëbb kenn nit ngir tedd gi nga tedd buur romb rom buur romb nañ rëbb ñoom rayaate nañu def safar ñoom mm. xam nga loolu it ak naa fekk la loolu du nuyoo ne ko abayta bañ nga laana rëbbu mm-hmm. ataani dikkal na ma an naka ne yow ni yedd nga ma wa tilka loolu allati mooy li nga xam ne ahtamu dana ma jàq min ha ngir moom wa am sabu dana ma sonn min ha ngir moom yëg naa ne yedd nga ma de te wallaay xam nga ne yow boo ma yeddee danaa jàq danaa sonn de ndeysaan ni mu ragalee noo maanaam noonu la war ragale yàlla wala nu ko fa bittu fanaan naa mhm. kerek ba ma yeddee ka ànd daati mel ni jigéen ñi way seet si faras na nii lalal lañ ma xaraasan garabu garab garabu dëkk yoon laa kaweel bii ci garab googu firaash yi sama lal wayuq shabu te danañ ko xeesalee de wala wayuq shabu danañ ko jaxaseeg sama lal ba de keroog ba ma dama feebar feebar ba jigéen ñi ñëw di ma seet si waaye jigéen ñi buñ ñëwee dafa mel ni sama lal bi rek garabu xaraas gaam dégg googu lañ fa def moom la ñuy defaree lal bi di ko xeesal xam nga lal dañ koy yëlëb fëgg ko lal ci malaan yu xees ngir mu rafet man nag sama lal bi def mel ni buñ koy xeesal di ko defaraat waaw garabu dégg lañ lañ koy xeesalee ba nga ma tëkkoo daal feebar naa feebar ba jigéen ñi di ma seet waaye sama lal bi keroog dafa mel ni ay digg fa nekk di ma jam dara neexatul ma rek wax de mu ma tëdd sa duwaay bu rafet ndax tiit xalaftu gëñ naa falam atru kon du ma bàyyi naf si ka si sa bakkan ribatan benn sikk walay sa nekkut mazhabun benn dem waaye wara allaay gannaaw yàlla lil mari ñeel nit ki wax na dëgg xaw ma xam na comme déet mu ne gëñ naa nag te xanaa bu ma gëñee ci yàlla dootoo sikkati ci man ndax gannaaw yàlla amul lu nit di gëñati ku xas gën ci yàlla nag xamatul lu gën a foor yàlla wallaahi wax na dëgg ah nga ne loo gën mu ne la in kunta boo nekkee xat bu lexta ñu lay ñu lay jottali an nii ci man xiyaanatan ak wor la mubliqu ko kala jottali salwaa ci kaajiram mbaaj axasu moo gën a mën a xor wa akzabu moo gën a mën a nar bu fekkee dañ laa jottali ne man dama laa hmm. dama def lu jaaduwut kala ko jox kookoo gën a rambaaj moo gën a mën a nar de kooku mooy rambaajkat bi mooy narkat bi waaye du man moom daal daa mel dañ ko doon jaxaseeg noomaan saa su ne walakin nii walakin na nii waaye man li fi nekk mooy kuntu nekkoon naa imraan soo xam ne li ñeel na ma jaanibun ak wàll min na ardi suuf si fii nekk na si mustaraadun ak bagante mustarad moy dama ko dikum wa mazabun ak yoon mune man dal yalla mayna ma soufi ay barab yu bari yu mo meuna dem fu nek man nafa faa dama ko dikk loolu mo xam de waye ne ku dama la bagn wala dama la ba waye na dama bari wal si soufi manam dama bari dal ay xamel xeyna dafa dañ ko dañ ko ne man dem na set yenen buur bala mune ko déedéet ma bari xamel rek ci gaw souf di dama ko dik waye na du dama la ba de nga ne ko sa baaganti boobu lan la mu ne mulukun ay buur lañ weex ixwaan ak mbokk yoo xam ne isa ma ateytum bu ma leen dikkalee wa xakkamu danañ ma attaloo fi amwaalim seen alal yi wow xarabu ñu jégal ma seen bopp am naa ci kaw suuf ay buur yoo xam ne ak ay yoo xam ne su ma leen dikkalee dañ naan sama alal nga ni defal alal jaa ngi ni def si lu la neex jégal ma seen bopp ah ma dem leen rek waaye nekkul ne dama laa wan gannaaw de ka fi'lika comme sa jëf yow noomaan fii qawmin si nit ñi nga xam ne araaka dinaa la gis istanaatum tànn nga leen faram tarawum gisoo leen aznabu ñuy bàkkaar fi shukri zalika si sant jëf jooju nga leen defal mu ne yow de am na ñu ñëw ñoo xam ne xamante ne xamante ne ñoo yeneen buur waaye bañ ñëwee da leen a tànn defal leen njekk ñu sant la nga defal leen teraanga ñu sant la te te jàppoo ne am nañ bàkkaar ci loolu de ma ne loolu rek la <laughs> wax <laughs> na ko dëgg yaa ngi ni tànn ay nit ñu di la gërëm ngir lañ leen defal ma nit dama am ma ñu ma tànn rek ma ma gërëm leen si ma defal mm-hmm. loolu rek la waaye nag yaay buur bu mag bi yow mm-hmm. ah mu mel na xamal na ko gars yi mu ne ko déedéet fa innaka naka yow mm-hmm. samsun jant nga wala muloo ko buure àddina yi kawaakibun ay biddiw lañ isa talanta boo fenkee lam yabdu du feeñ minu na ci ñoom kaw ka bun benn biddiw yow yaay jant bi buur yi di biddiw yi isa tanaat bu feeñee moom jant bi jant bu feeñee biddiw du feeñ kon yow boo soxlaa buur yi soxla buur yam ñàkk waaye boo soxlawul kay te buur yi waa xamante ne ñoo man kóllëre ma dem fa ñu defal ma teraanga ma gërëm leen jàpp ma ne loolu bakkaar ci nag de ndeysaan falaa tatrukanni bul ma bàyyi bil waa di ci tëkku gi kaan na mu mel ni man mat li yun kuñ diw laa moom alxaaru gadaron ajra bu kuram la ilan naa bu ma jëmee si nit ñi rek laa wax de soo ma tëkkoon nit ñëpp danañ ma baax damay mel ne rek ku ràmm ñu diwal ko gadaron pour faj ràmm ko bu jubloo nit ñu nit ñëpp daw ko ndax ku mu amee ay ay góom nit ñi ko bëgg a jege kooku nga xam ne ñu ngi ko diwal gadaron bu jubloo nit ñi xam nga ñëppay daw boo ma tëkkoon danga ma bàyyi ma mel ni gërëm googu rek laa wax xam ne ñëpp may daw kon bul ma tëkku bu ma tëkkoo ñëpp ba ma alam tara kanaa gisoo hmm. yow noo maan am na laa ne yàlla en tant que jox na la suuratan mën naa nekk mën naa nekk sawratan hmm. bu dee hmm. daraja yàlla jox daraja bu dee sawratan nag mooy yàlla jox ak songu alam tara kanaa gisoo an na laa ne yàlla en tant que jox na la sawratan ak ak wala suuratan ak daraja yoo xam ne tara danga gis kulla malkin bépp buur ite zëb-zëbu muy déng-déng doona haawalis ko de daraja ji la yàlla may buur yëpp koy sori wala songu gi la yàlla may buur yëpp mm, jegewuñ ko ah ku mel noonu nag du songu ku mel ni man wala sa nekkoo bi mustabqin daa ji desal nag axan mbok moo xam ne laa talumuhu doo ko fat ala chansin ci ak yàqu ayu rijaali kan ci ñi almuhazabu mooy ku sell ku sell bu dee sama ayib yu ndaw ah, buur nga nag waaye nag xam waa joo xam ne moo xamul benn yàqu-yàqu ba bu mu nekkaale nga di ko muñal loolu moom mënoo ko am nag <laughs> lu ko ragal ragal mu wax ah ana ku sell <coughs> dégg ko amul benn ayib loolu xamut kon koo fat rek am na yàqu-yàqu gu nekk ci biir nga muñal ko ko manit muñal ma rek yu ndaw yi fayin ak ku ne nekk naa nag mazluman di kuñ tooñ fa abdun jaam la boo xam ne zalam to tooñ nga ko boo ma tooñe a ah, yaa moom sa jaam rek nga tooñ dara nekku ci wayin takku boo nekkee nag zaxut ba di war ma gërëm fa mislu ko ku mel ni yow yonti bu dana gërëm loo soo ma gërëmee nag ku ni yow nag yàgg naa gërëm loo nit rek laa wax de dégg maanaam la neex boo ma tooñee dal sama kaw yaa moom tooñ nga ma waaye boo ma gërëm looy xelloo teraanga googu ku mel ni yow naa def teraanga rek laa wax de xasida boobu la way wa qaala wana aydan ba tey xasida bi la ko waral noomaan dafa xayoon uqur ne fa kenn sàmmoo sàmmee ab qur la mu ne fa kenn sàmmoo mbokki Nu'maan di banu Zubyaan dem sàmm fa ah Nu'maan commencé wax nag ne laqad wallahi tere naa bani Zubyaan banu Zubyaan uqulin ci uqur wa an tarabbuhum ak seen ak sax ca waxtu lool li fii kulli asfaay ci ci weeri safar ah mu ne banu Zubyaan de ah. mbokk yi ci ñooy banu Zubyaan xam nga foofu la bokk mm. ak Zubyaan yi la mbokk mi ñoo fa sàmm mu ne ah waa banu Zubyaan sama mbokk yi wax naa leen bu leen jege uqur de bu leen fa sax tamit ci weeru safar ci jamonoy lool ni dégg nga ngir sàmm de def loolu waaye naa leen ko de <laughs> wa qultu wax naa leen yaa qawmi e yéen samay mbokk inna laysa naka génne ga te muy noomaan mun xabinu aji ngëbu la ala bara ci weexem ya li wasbati daari ngir mu tëb comme tëbëb génne gi aji xiir rek laa wax wala génne gi aji baaxoo fadd ma ne leen Noxmaan mi ngeen xam ma nga ngëbu mel ni génne goo xam ne samp na weeya pour tëb songu rab wi te yàgg na koo def kon nag Noxmaan waaj na ba pare bu ngeen jegee uq rek mu songu leen kon bu leen ko jegee wax naa leen loolu mm. ndeysaan laa aarifan na du ma mukk rab raban mboolom ñagu njaaxal la mm-hmm. xuuran wala watare xuuran yu wey ñuul wala xuuran wa xuur daal mooy koo xam ne bëdi la cee weex dafa weex tàll la cee ñuul ñuul kukku mm-hmm. xuuran mbir mu muy rafet madaami waa seen madaami waa seen ronkoñukaay mooy seen bëdi ya ka naab kaaraha ba mel ni jànqam yaa mm-hmm. neaju duwaarin wali duwaar la duwaar xërëm la goo xam ne arab dañ ko jaamu mu ne du yàlla bu ma gis mukk suñ jigéen ñi jigéen ñi banu zubyaan yi nga xam ne seen bët yaa ngi rafet ba dégg nga waaw kenn xamul noo ko mën a tuddee daal bët yaa ngi rafet lool seen jànq ya mel ni wëll yuy wër këlam ak duwaar dégg nga noonu la jànq ya mel rafet lool mu ne du ma gis jànq yooyu mukk yan jour na ñi ngay xool sasaran ci rok wala rok ñi ngay xool ca wet ga ilaa man jaa ca ka dikk naan waru din ci wàll gaaw juhin ci kanam munkiraati riqi yu bañ jaam axraarin ñe de way go ñey gor mu ne ah, bu ngeen sàmmee uqur noomaan dara jàpp suñu jigéen ña def leen jaam jigéen ña nag di rog ndax danañ gis ku ñëw ci wàll ga di leen dimbale ndax ñoom duñ ay jaam bañ nañ jaam ay gor lañ waaye bu leen noomaan jàppee dana leen def jaam ñuy xool nag ndax danañ gis ku leen dimbaleem déet ñuy xool ci wet ga mu ne loolu yàlla bu mu ko fekkee daf leen bëgg wax na rek baleen uqur xalfal daari tii ñañ sa gannaaw saay-saay ya dégg nga laa yu xëy na duñ leen xólloo faay si tan jaalo mustamsikaati ñi dafay jàppandu bi aqtaabin ci bant teg waa ko waa leen ak ay teg rek laa wax de mu ne jigéen ñooñu buñ leen jàppee dañ leen booleeg ay saay-saay ah saay mën nañoo jaalo ñoom jigéen ñi xamuñ benn pexe kanaan lu may jàppandu si bant teg ya ak teg ya de ngir bëgg a mucc loolu rek lañ man kon nag fexe ba buñ jàpp jigéen ñi di njaaloog ñoom noonu te duñ ca man dara yeesal yusi na li ngay tuur dama lonqañ ala ashfaar yi ca mbi ci bët ya mooy karaw yu bët ya mun xaddira lonqañ yu aji bàttandiku yaa mun na danañ yaakaar yaxlata xisnin laxasab xisna ibnu sayaarin ak laxasab ibnu sayaar de mu ne jigéen ñoom jigéen la yoo xam ne dañuy tuur seen ronqañ ya càmbatu bëri ya ronqañ ya wadd bu baax ñu ngi yaakaar xis na ibnu sayaar ñëw dimbale leen fexe leen boobu loolu xam ne ñu jàpp jigéen ñi ñuy xaar xis noog ibnu ah, bu loolu am ceysan ida ma usi imma usitu nañ ma fay nii naka man xëy mun faritin du rëcci min nii ci man allisaabu dégg nga waaw diggante doja jan ba harati naari topp ñaari walla kekkab safara sa haratu naari benn barab la woon boo xam ne ba nu muura moo ko moom ñoo ko moomoon mu ne su ma leen diggalee nag bu leen jege uqoor ngeen jege ko man moom du ma ko fekkee maa ngi ca diggante xuriya ak ci xar <laughs> eh, kii num regale numa <laughs> dang eh, ko na <laughs> ndeysaan xaalis bu gën a mar lii rek xam yaramam dana war daw de <laughs> astafurlah maa ngi ci diggante xuur ak ñaari wala xarab su naari foo la balaa làqatu la <laughs> waaye astafurlah yow laa làqute rek laa wax ma teg albayta néeg ba fii sawda si kekk bi aji ñuul muslimatin bi aji lëndëm tu xayidu dana tënk alaayra mbaam ma laaye si du rañaan bia ci moom asaari aji rañaan ji su fekkee aay naa ngeen bañ da ngeen sàmm ci uqur danaa jël sama kër dem toxal ko yóbbu ko ci kekk gu ñuul kukkul lëndëm nga xam ne mbaam du fa mën a dox dafay tënk mbaam yi te rañaan kat du fa mën a ñëw làqatu foofu rek ndax man noxmaan du yegg si man <laughs> tu daafew dana jeñ maanaam dana défendre moom suuf soosu annaasa ni ñaan naa walis ñu xëy na narkabuha buñ ko waree rek laa wax de minal mazalimi mu bokk ci barab yi lëndëm yi tuddaa danañ wooyee suuf soosu umma sabbaarin umma sabbaar bis bu ngeen bañee nag ne da ngeen sàmm ci noomaan man danaa làqatu ji ci suuf su lëndëm soosu kekk bu lëndëm boobu ñun kukku ñu koy wooyee umma sabbaar nga xam ne ku fa dugg rek nit duñ mën ci yow dara su ma waree suuf soosu nit ñi duñ mën a man man fa man waaye du ma fekkee songam Noomaan ma ñu ne ko lu xew mu ne saaqahum man na moom Noomaanu a rufaydaatu banu rufayda ñooñu ci banu kalbu lañ bokk min jawsin ci waa jawsu wa min azamin ak ci azam jawsu ak azam ay barab lañ ci suufi kalbu mu ne Noomaan andi na rufaydaat ya waa banu rufayda ñu ji jugee jawsu ñu jugee azam wa maa sa min raati ribiin ci giiru rabii wa xajaar yi ak waaru fayda andi na giir ak xajaar ñoom ñëpp pour songu leen rek de boo xamul nag riba ak xajaar mu ne xar ñoo ñaari sangi xudaata ay sang yu màgg lañ yu bokk ci xudaa xallaa wàcc nañ ñoom ñaar wala xar may xudaa ñaari sang xudaa mm, yi allah wàcc nañu wala xujjarati yi ci la wër saalam ba rek laa wax de madda tëbb nañ ala yi ci moom bisullaafin ci way jiitu waan faarin ak ay mbooloo ñaari sang xudaatu yi wàcc nañ foofu xam ñu jiital nag ñu jiitu leen ci xare ba ak mboolo mu bari moo xam ne nii ñu ngi ñëw pour song leen yéen banu Zubyaan hatta staqala ba buur na moom Nu'maan bi jamin ci mbooloo moo xamee la kifaadatan nawle lahu di ko ñeel mbooloo mi Nu'maan nar a andi pour songu leen xam nga ne mënu leen ko dékku kat man laqatu ji naa bu yàgg man yéen fii dana dàqal woo sandia àll ya jaraarin mbooloo mi aji direeku wala boog da naan bi jamin ci mbooloo moo xam ne nii jaraarin aji direeku la la kifaadatan nawle lahu di ko ñeel yéen fii dana dàq moom al woo sandia àll yaa ni ci àll yi mbooloo àll buñ dem jaal yëpp daw xajal leen fa ñu ngay direeku nag amu leen doole xattan euh, song mbooloo moomu mbooloo moomu la noomaan nar a andi nag pour song leen laa yax fi du du wàccee risa kàddu ga an ardin si suuf soo xam ne alam ma wàcce na biyaa si moom xare bi noomaan yore du xare tàppet nga xam dafay wax nànk ngir ba ñu yëg ko pour mu bett gaaya waaye dañuy yuuxu ca kaw noonu xam ne ñu ngi ñëw ndax xam na ne buñ ñëwee rek faagaagal noonu ñoo leen man xare boobu la noomaan na la andi nag wala yeddilu du réer ala mis bàyyi ci lampam ba asaari ajara ñaan kuy dox guddi da gis seen safara sañuy taal ñoom xare ba maanaam laqatuwuñ noomaan bu jugee du laqatu kàddu ga dafay yëkkatiku ñëpp xam ne ma ngay ñëw lamp ñuy taal safara nag ñëpp xam ne armée noomaan baa nga nele ndax wóolu seen bopp kon nag yéen waa banu zubiyaan te na a bañ a sàmm oqur bu ngeen ko sàmmee man moom du ma fekkee xare boobu maa ngi ca maa ngi ca doje man fa laay laqatu ji waa yarat nii reetaanee na ma wala waa yarat nii ayibloo na ma banu zubyaana banu sama mbokk yi xaseetoo ragal noomaan waa banu zubyaan ñu ngi may reetaan naan ma damaa ragal noomaan <laughs> wala la ndax na ma ndax benn ndax war na ma min aarin ci benn gàcce benn ak saaka ci ma ragal la aywa ragal la ndax gàcceen ci xam nga ne ragal la kay benn gàcce nekku ci ndax buur bu mel ni yow <laughs> ku ragal it amoo gàcce xam nga lu tax lii jàppee mooy arab yi ay bañkat la ñu woon bañoon toroxtaane te moom boo ko ci kanam doomaam saa su nekk loolu waral mu yéeme إن أريد الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته